asalaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien conseil constitutionnel jox feu vert président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba say su ko nexé mo meuna dissoudre assemblée nationale ngir mon ko tass dal. Wa assemblée nationale ñom nee altiné altine di ñew ci lañuy xam ndax euh, projet de loi bi voté li meuna dissoudre CSE ak HCCT daan ko wote waaw wala déet malal taala fu malaat japp ne buñu bëggé yaxanal alalu rew mi nañu supprimer caisse noire Wa Benno Bokk Yaakaar ñom ñoo doon bilan au président Macky Sall ci fukk at yeeg ñaar yi mu fi def ci livre blanc buñ ñu doon présenté ñoom Ablaye Diouf sar ñom euh, Sidiki Kaba ku ci nek jël cadeau dal tag président Macky Sall wax li mu def. bani amna na gone goo xam nguur gi fi nek fan yi dinañ ko ngenté waye juruñ ko projet yo xamné président Macky Sall moo ko réalisé Amadou bana ken gisuko ci won ab dal di taxaw. premier ministre bu Espagne bi mu seetsee président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay waxtan nañ ci walu immigration waye immigration choisie manam ñi nga xam ne Espagne daf leen soxla ci yan secteur ñi witt wala ñi xam-xam wala médecin yooyu daal mooy wàllu immigration choisie procès boo fa bayoon ca Casamance ña ca bokkoon ñëpp wàcc nañ leen ginnaaw juróom-benni at ba mu des René Bassène moom perpète lañ ko tëj ñaari doomi Didier Badji la ambassade bu France jël seeni passeport gor ci lank ne duñu len ko jox lañu tam def am ñu len di défendre ci internet bi ñom ambassade bu France defuñ ko xalé yoy kasse de ko laal ci rew mi rek amna jax jaar jaar ak ambassade bu France ndax ñak wegeel ci rew mi gi mari Sagna mer ci lolu ba walay walay police bu Senegal, amna ay ciopité yu bari ci am sangare bu na fa mu nekkon adrame wutunoko, na polis ndax police mën nañ dara ci violence bi am ci rew mi waaw démb way ben way lañu fekk ci bir neegam tiimale ko fital ba tiire ko ndax waa ji fa doon fab ab xaalis di ko yóbbu banque ñaare jabara ma doon def témoignage bi waa ji mu ngi ci diggante dund ak dee ñaari biis tata ñoo doon course pakk làmbay démb ba ñaari nit course njëkkante